alhamdulilah rabbil aalamiin wa salli allaahumma wa sallim alaa abdika wa rasuulika nabiyyinaa muhammadin sayyidil mursaliin wa alaa aalihi wa asxaabihi wa man tabi'ahum ilaa yawmi ddiin ammaa ba'd mbokki jullit yi maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp ragal sunu borom tabaaraka wa taala ragal yàlla mooy jàppandukaay bi saa boo xamee ne. nattu ñëw na wala jafe-jafe wala musiba mbokki jullit yi ñu xam ne ab nattu dafa bokk ci tëraliinu sunu borom tabaraka wa sunna rabbaniya moo di loo xam ne sunu borom tabaraka wa taala noona la tëre te mëneesu koo soppi dafa bokk ci aku xarañam muy nit ki daf koy nattu ay nattu yu jàkkaarloo yoo xam ne yii day jëm ci mettit yi jëm ci neexit moo tax mu koy nattu ci ñàkk di ko nattu itam ci bari la di ko nattu ci wér di ko nattu ci tawat muy wopp di ko nattu ci ak ragal di ko nattu it ci daluk xel lépp loo xam ne nit ki da bëgg wala mu di ko bañ ab nattoo nga ca biir boo xam ne day xool ba xam lii nga bëgg dana dox sa digganteeg sa diine dox sa digganteeg sa boroomam ndéet lii nga bañ sa ragal koy ndax dana la tax a ci sa diine wala déet moo tax sun borom tabaraka wa taala ne wa balawnaahum bilxasanaati wassayiaat nattu nan leen ci li nga xam ne yu rafet la ak yi nga xam ne yu ñaaw la maanaam lu metti ak lu woyof laallahum yarjiun ndax ñu man di delluwaat ci seen borom di tuub waxaat ne wa nabluukum bi charri wal xayr dana nu leen nattu ci jàmm ak ci métit muy ay fitnatan ngir xool leen ba xam nan ngeen di jëfe seeni réaction nan lay demee mu ne wa ilayna turjaun ndax ci man rek ngeen di mën a dellusiwaat waaye amu leen feneen fu ngeen jëm mbokki jullit yi bokk na ci li nga xam ne képp ku am xel te am ngëm yàlla war ngaa gëm ne mbir yi di xew ci kaw suuf ak lu mu mën a doon sunu borom tabaraka wa taala moo ko dogal muy lu rëy wala muy lu ndaw mooy ki xam léppam sunu borom tabaraka wa taala xam-xamam dafa matale xam na lu mas a nekk ci gannaaw ca la weexu waaye xam na lépp luy ñëw ca kanamit la dul nekk sax nga xam ne du ma a nekk suñ borom tabaraka wa taala xam na loola su nekkoon nan lay mel suñ borom tabaraka wa taala nee na ma farratna fi lkitaabi min shay téere bi nga xam ne mooy lawxul mahfuus nee na bàyyiwul dara lépp bind na ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa wax nanu ne borom bi tabaraka wa taala bi mu bindee xalam muy bindukaay bi nga xam ne sunu borom tabaraka wa taala ci lay bindee mbir ya wala moom lay digal muy bind mbir ya ba mu ko bindee ba noppi def ne ko uktub bindal mu ne ko rabbi wa ma aktub lan laay bind yow sama borom mu ne ko uktub maqaadira kulli cheyin xata taquuma saa bindal lépp loo xam ne lu nar a xew ci àdduna la ba kero yowmal xiyaam di taxaw lépp loo xam ne lu dal ci kaw doom aadama la su dee lu ko neex ci wàllu kanam te doon lu baax sooy boo xam ne loolu xéewal la waaye su dee lu ko naqar it nag metti ci moom te fekk du mooy yàlla sooy boo mu xam ne it ba tey xéewal la ndax bépp metti metti buy dal ci kaw yaramu doomu aadama wala alalam wala ci njabootam sunu borom tabaraka wa taala daf ko cay faral ay bakkaar di ko ci bindal ay tuyaaba moo borom bi tabaraka wa taala di wax ne wa asa an takrahu shay'an wa huwa xayrun lakum amaana mën ngeen a bañ dara te fekk loola moo gën ci an tuhibbu shay'an wa huwa sarrun lakum amaana it ngeen bëgg dara te fekk loola baaxul ci yéen mu fekkee ne wallahu yaalamu wa antum la taalamuun yàlla moo xam waaye yéen xamu leen ndax li ci kanam xamu leen ci dara yonente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo tax mu ne man de yéemu naa ci mbirum jullit ci gëm yàlla mooy koo xam ay mbiram lépp yiw la su fekkee ne metit nattu metit dafa dal ci kawam maanaam su fekkee mbég dafa dal ci kawam day daal sant boroomam mu doon aw yiw su mettit dalee ci kawam muy ab nattu nee na dafay muñ su ko defee mu soppi ko aw yiw ci moom mu ne nag walaa yakunu dalika illa lil mu'min loolu kenn rek a ko mën a am ci kaw suuf si muy ku gëm yàlla ci gëm yàlla rek mooy def saa boo xamee ne xéewal tege na ci loxoom yàlla la ciy sant saa bu nattu tegoo ci kawam mu muñ ngir yàlla kon du jël xéewalu sunu borom tabaraka di ko sante keneen ku dul yàlla loolu du melokaanu sunu borom tabaraka wa taala du melokaanu ku gëm sunu borom tabaraka wa taala mbokki jullit yi mboolem borom xel yi dëppoo nañ ci ne wér gi yaram dafa doon ba xanam ndëpp moo xam ne daa mel ne nit ñi dañ koo sol waaye ka koy mën a gis mooy ku feebar ki nekk ci wér-gu-yaramam mën naa dem ba fàtte xéewal gi ne ci moom waaye bis bu ko tawat dikka dikkalee ci lay door a xam ne ndekati kat man ci jàmm laa nekkoon feebar yi tasaaroo na ci àdduna tasaaroo boo xam ne jéggi na dayo ba néew na wala sax mucc ci kenn mucc ci dund gi noonu la dëppoo ndax waxkat ba day wax ne samaniyatun la budda minha ala ولا بد أن تجري عليه الثمانية سرور وهم واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية nee na juróom ñett ngi yoo xam ne doomu aadama yi mënuñu ci mucc bég day am njàqare di am faw yooyu dañuy gaar nit dajeeg ña nga bëgg a dajeel wëlbati bu tàqalikoog ñoom moo xam ban façon tàqalikoo lay doon soo ko gisee jafe-jafe daal di bég wala ak yomb ak xéewal ak sotti ku xéewal jafe-jafe sooy bëgg di ko séentu soo gisee jafe-jafe sooy bëgg a séentu sotti ku xéewal ba ca tegu mooy feebar ak wér kon mbir yooyu la doomu aadama yi di dund ci seen diggante boo nekkut ci bii yaa nga ci bii boo nekkut ci bii yaa ngi ci bii dëgg la tawat yi nag lu metti la lu diis ci bakkan la waaye sun boroom da koy def ngir sikk ma maanaam dafa xam lu tax mu koy def loola nag am na ñu ko xam am na it ñu ko réere moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ma min muslimin yusibuhu ada amul benn jullit boo xam ne lor dana ko dal min maradin fama siwaahu moo xam wopp la wala lu dul wopp illaa xatta allahu bihi sayiaatihi kama taxuttu shajaratu waraqaha nee na dal loo xam ne lu metti ci moom la sunu borom tabaraka wa taala daf ci sippi ay bakkaaram muy ruus muy ruus di wadd comme ni nga xamee ne xobi garab su woowee day wadde ca ndey daanu ci suuf xadis boobu mi ngi buxaari ak muslim buxaari génne na ba tey ak muslim jëli ci abu hurayra yonente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne maa yusibu almuslima min nasabin wala wasab wala hammin wala xusnin wala adan wala gammin xatta shawkata yushaakuha illa kafara allahu biha min xataayaahu amul benn jullit boo xam ne wopp dana ko dal wala coono wala njàqare wala mettiit wala lor ba ak déggu ko jam sax déggu jam ci tànkam sax mu seppi ko wala loxoom mu sekki ko nee na lu dul ne sunu borom tabaraka wa taala mi koy faral ci loolu ay bàkkaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam benn bis dafa ñëw ci soxna suñuy wax ummu saaib bi mu dikkee fekk ko muy onk maanaam di wonk mu ne ko waaw yow ummu saaib loola dal da ngay onk mu ne ko day xanaa sibru rek su booxoon ma sibru muulu ko yonente bi sallallahu alayhi wa na ne ko déet bul ŋàññi sibru bu ko xas ndax moom kat day dindi ay bàkkaari doomu aadama comme ni nga xamee ne ab taal buñ ca dugalee or day lakk la bokkul ca or ba or ba kese des fa sell mu ne ko noonu la koy def xadis boobu mi ngi ci muslim moo tax kenn ci asalafu saalix feebar bu metti dafa nekk ci ab tànkam waaye fu ñu koy gis rek muy muy muuñ ànd ak njëkkeem mel ni dara dalu ko te feebar bu jéggi dayo bu metti la suñu waxee rek mu dellu ci boroomam ñu ne ko waaw yow metti du metti nii te kenn du dégg nga wonk mu ne dama xam ne neexiitu tuyaaba ji cay tegu moo ma fàtteloo metti wi nga xam ne maa ngi koy yëg fi mu nekk kon loolu mooy melokaanu ci gëm yàlla eh, mbokki jullit yi nag buñ gisee lislaam di soññee ci nit ki li dal ci kawam ci ay nattu ak metti metti mu war ko muñ bu mu tax ñu defe ne lislaam dafa bëgg nit ki sàkku ji ay metit wala muy ñaan yàlla feebar wala ay musiba wala ay jafe-jafe déedéet lislaam kay lim wax mooy ku loolu dal ci sa kaw nga yor melokaan wi am nga xéewal waaye la ko gën a nit nag mooy nit ka muy ñaan jàmm moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nasalu allah al afwa wal aafiya ñaan leen yàlla ak njéggal ak jàmm ndax kat kenn ci yéen fa inna ahadan lam yuta baada al yaqini xayran min al aafiya gannaaw gëm yàlla ak wóolu ko nit ki amul xéewal gu gën a rëy mu am jàmm kon loolu moo tax mu ne dee leen ñaan jàmm yàlla na ko yàlla defal kilifa bu mag ci salafu saalix muy Mutarrif ibn Abdullah ibn Shakhir nee na man day ma ànd ak sama jàmm di sant sama boroom moo ma gënal ñu di ma nattu muy muñ kon ñaari mbir la yoo xam ne benn bu ci nekk am na tuyaaba waaye nag bii moo gën ndax ginnaaw bu ne day indi tuyaaba ba noppi bii jàmm la bee di indi tuyaaba waaye dafa ànd ak metit mu ne kon booboo ko gënal mbokki jullit yi nun ñëpp ñoo ngi dégg fan yi tawat yoo xam ne niñ ko melale feebar bu metti la buy faagaagal ay doomu aadama yu bari la di ko def ci anam goo xam ne itam gu gaaw la ñu di ko dégg ci réew yi nga xam ne soriwuñ lu dara ndax ci Afrique gi féete sowwu la waaye sunu borom tabaraka wa def jàmm ba léegi sunum réew ak suy loolu nag dana jaaru jullit bi mu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax xam ne lu ñëwagul lu nekk am na nuñ koy fàggandikoo ndaxte lee mu bañ a ñëw tomb yi di ñëw kon ay mbir la yoo xam ne nit ki mën na cee fàggandiku ba suñu borom tabaraka wa musal ko ci feebar boobu ñu Ebola ak bépp feebar boo xam ne buy faagaagal ay doomi aadama la jéego ba ci jëkk mooy bari ñaan ñaan doa moom dafa doon loo xam ne mbiram dafa màgg màgg woo xam ne jullit bi mooy ngànnaayam lu mag Abdullah ibni Omar radiallahu taala anhu nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi baat yi saa bu masaan xëy ak su gontee daf koy wax allahuma inni asaluka al afwa wal aafiya yow saa boroom maa ngi lay ñaan ak njéggal ak jàmm fi dunia wal axira ci àdduna ak alaxira loolu mooy ba ci jëkk ba ca tegu mu ne allahuma inni asaluka al afwa wal aafiya yow saa boroom maa ngi lay ñaan ak njéggal ak jàmm fii diini wa dunyaaya ci sama adduna ak ci sama diini ak ci sama wa ahli wa maali sama njaboot ak ci sama alal allahuma astur awraati wa amin rawaati yow sama maa ngi lay ñaan nga sàngal ma samay awra samay ñaaw tiir te musal ma làq ma ci lépp loo xam ne lu may la allahuma axfadni min bayni yadaya wa min xalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa audu bi azamatika an uxtaale min taxti mu ne yow yow sama borom maa ngi lay ñaan nga wattu ma sàmm ma ci sama kanam ci sama gannaaw ci sama ndeyjoor ci sama càmmooñ ak ca la ma tiim di muslu ci sa màgg gi yow sunu borom tabaraka wa taala ñu di ma yongaan yongaan goo xam ne suuf la may jóge bett ma kon tomb bi jëkk ci luy fekk doomu aadama yi musal leen ci wabaa muy musiba mbas moo xam ne dafa ñëw daal ci seen kaw mooy ñaan te ñu bari nag bu ñu dénkaane ay fàggandiku dañuy fàtte tomb boobu te mooy bi ci ëpp solo ñaareel ba moo di set set loxo doomu aadama dafay toxal lu bare bare bari ci ay tawat wala ci ay doomi jàngoro yoo xam ne dañuy indi tawat su ko defee nit ki fonk di raxas loxoom ci saabu loolu ñuy wax ci wàllu wér-gi-yaram wàllu santé dañ ciy soññee fuñ toll moo xam lu jiitu nit kay lekk la wala su lekkee ba noppi wala su génnee ci wanag wala su joxante loxo ay doomu aadama raxas loxo bi daal muy set kooku ci cosaani wér-gi-yaram yi ci la bokk ñetteel ba mooy environnement bi ngay dundee muy kër géeg mbedd mi ñu góorgóorlu ba mu set lépp luy nuroog xeetu mbalit ñu fexe ba jële ko fa ci jëlin woo xam ne mooy wi sell wi jub waxee su nga jël mbalit ci sa kër sotti ko ci kër jàmbur wala ci buntu kër jàmbur wala ci mbedd waaye dafa am ay jumtuwaay yu ñuy jëfandikoo yoo xam ne foofu la mbalit war a dem nga def ko fa ñeenteel ba mooy képp koo xam ne sunu borom nattoo na la ngay yar ay mala di ko jege ci sa kër foo toll nga di leen sang bañ set wecc ndax lu bari ci feebar yi ñuy ragal ci mala lay jóge juróomeel ba ndox mi nit ki naan mu doon ndox moo xam ne mu set la te bu setee ba noppi mu sàmm ko ba lu koy taqal wala mu koy salteel du ca dugg juróom benneel ba mooy sàmmoonteeg lépp loo xam ne dafay fekk sa bopp di fekk sa mbokki nit yi wala sa mbokki jullit yi ba doo leen doo leen lor ndax nekk ci biiru nit ba mu yàgg nga jékki-jékki rek tësli yooyu naawee ci say bakkan di naaw di dem ca nit ña wala nga sëqat am yu jóge sa gémmiñ di dem ca doomu aadama ya kooku jooyante na ak teggin yi jooyantu jooyoona itam ak fegu kon jaadu na nit ki yor musuwaar boo xam ne bu dee tisli wala muy sëqat daf koy teg ci gémmiñam ngir mu bañ a lor kenn ci lenn loolu su ko ñëpp àndee def loolu lu am njariñ lay doon rawatina ci biir biir jàkka yi ak jumaa yi ndax lu bari foo xam fépp foo xam ne mbooloo daf fay daje ku ne rek bérébu euh, tuxalu feebar man na faa jóge ci kii dem ci kële te kenn ku nekk da ngaa bëgg a ñëw jaamu yàlla génn dem waaye genn doomu aadama du loru ci yow juróom-ñaareel ba mooy wattandiku ay aada yoo xam ne nit ñi dañ koo fonk ba di ko nuróoleeg diine te bokkul ci diine nit ñi tàllal seeni loxo nga ñaan a ñaan ba àggal tiflil leen ci seeni loxo ñu daal di koy yore noonu bu ñu demee mën nañoo lekk wala mën nañoo naan mën nañoo jëlee ci yow mi leen tifli feebar loolu nit ñi dañ ko tàmm di ko jëfe noonu rek waaye diine xamul benn geste boo xam ne ay doomu aadama dañuy ñëw tàllal seeni loxo am yenn doomu aadama joo xam ne day ñaan ba mu neex ku mu daal di tifli ci seeni loxo ñu daal di koy jël yóbbaale ko kon loola lu mat a wattandiku la léeg-léeg it nit ki ci boppam moo koy defal boppam xëy julli ba àggal daal tifli say loxo tiflee tiflee tifli daal di raay def ci saw yaram ki dend ak yow nga daal di koy jox loxo mu daal lay jox loxo moom it lépp loo xam ne tifli woon nga ko ci sa loxo moom mën na ko yóbbaale kon yooyu ay mbir la yoo xam ne aada yoo xam ne nit ki daf ko war a wattandiku daa iman ci ak dundam rawatina nag buñ nekk ci jamono joo xam ne dañ ne feebar a ngi tasaaroo juróom-ñetteel ba mooy wattandiku bépp xeetu raj rajloo ak jaxasoo boo xam ne bu jéggi dayo la wala ngay déplacé di jóge ci béréb di dem ci béréb boo xam ne feebar daf faa nekk moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw na ci saxiixayni ci xadiisu Usaama ibn Zayd radiyallahu anhuma mu ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam nee na su fekkee ne dégg ngeen feebar buy wàlle ida sami'tum bi taa'uun taa'uun mooy bépp feebar boo xam ne dafa gaaw ci faagaagal doomu aadama te gaaw ci wàlle nee na su ngeen ko déggee ci benn béréb fala tadxuluha bu leen fa dem di fa dugg booba béréb moom bu leen déplacé ci mukk jëm fa wa ida waqaa bi ardin wa antum fiha su fekkee nekk ngeen ci dëkk wala béréb ba mu yàgg ñu ne feebar booba ñëw na fa fala taxrujo minha nee na bu leen génn toog leen foofa boo déplacé fekki ko mën nañ laa wàll boo jógee fi nekk dem feneen itam mën ngaa wàll ñeneen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ko ci beneen xadisu abi hurayra mu ne bu leen jël ku feebar di ko yóbbu foo xam ne ku wér a fa nekk bu leen jël ku feebar di ko dugal foo xam ne ñu wér a fa nekk loolu nag feebar buy wàlle moo tax ñuy wax juróom-ñeenteel bi mooy jaadu na ci ñépp ñoo xam ne dañoo nekk ci ay frontière ñu di leen ko wattuloo te mu dend ak bërëb boo xam ne ay nit ñu yor feebar wala jàngoroy feebar mën nañ faa jaaree di dugg ci nit ñi jaadu nañu upp frontière yooyu jaadu nañu joxe ndigal ne nañ ko upp ndax yàlla feebar bi bañ a déplacé di dugg foo xam ne àgg ko fa woon te loolu dafay dëppoo ak li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ci xadis boobu weesu léegi fukkeel ba moo di li nga xam ne mooy média presse bi moo xam bu ñuy déglu la wala bu ñuy bind la wala bu ñuy jàng la responsabilité bi gën a rëy ci seenu loos la tege jaaduwul ñuy tasaare ay xabaar yoo xam ne dafa aju ci lu mel noonu di wax ne dugg na ci réew mi te fekk dugg ci ndax loolu musiba la moo xam ne mën naa jur nag lu bare bari ci ay jafe-jafe jafe-jafe yooyu bokk na ci moo di tiital doomu aadama yi te sànni tiitaange ci xoli doomu aadama yi kooku musiba mu rëy la moo xam ne mën naa tax ki feebaruloon sax mën naa feebar far wala ki mu fekkoon mu feebar far feebaram yokku ngir tiitaange tiitaange baaxul ci nit kon daganul ci benn doomu aadama muy tiital beneen doomu aadama rawatina diggante jullit ak jullit mën naa tiitloo it ña nga xam ne dañoo jógoon bëgg a dem ci réew moomee ngir yóbbu fa loo xam ne seen njariñ la moo xam ay commerçant la moo xam ñoo xam ne bëgg faa def seen alal la ko taxoon a moo xam ñu jógoon sax di dimbali ji xeet woowa waaye bu ñu déggee ñu loolaa nga fa ñu ne foofa de man kon du ma fa dem daal di téye lañ am mu doon lor su fekkee loolu nag dafa nekk rumeur boo xam ne dañ koo wax te dara du ci dëgg kon kooka mi ngi lor boppam mi ngi lor itam askan la tomb ba ca tegu te gën cee garaaw ci jamono jii ñuy dund moo di mën naa tey jullit yi ñu aji màkk man ma lis na leen koo tere ndax lépp réew moo xam ne ci réew yi ñu jéggagul ma nga fa fu mu fi nekk fu nekk ba seenum réew déclaré ko officiellement Euh, réew ma yore aj def nañ seen déclaration ne réew sangam at mi jëm bu ñu aj kon nag su fekkee ab journaliste toog na fa wala ab journal boo xam ne amul benn responsabilité ci boppam xëy xëy rek daal di ne Sénégal day feebar bi tasaaroo na fi ñooñu dégg ko daal di ne kon Sénégal yi duñ aj si ren kooku dana lor ci ay doomu aadama moo xam ko koy wax ab jullit la moo xam du jullit waaye mi ngi lor ci ay jullit loo xam ne ñu waroon a aji màkk war a defi seen man ko mu fexe bañ tere leen ko kon kooku musiba mu rëy la moo xam ne kenn waru koo fooyee kenn waru koo caaxaane moo tax suñu borom tabaraka wa taala wax ne lépp loo xam ne dafa aju nit ki lu muy jàng di ko dégg ñu ne ci xolam wala mu di ko déglu ci noppam wala mu koy gis ci bëtam di ko liir kooku responsabilité la moo tax mu ne wala taqfu ma laysa laka bihi ilm lépp loo xamul bul ca wax inna samaa wal basara wal fuaada kullu ulaika kaana anhu masula dégg la nit koy gis di ko dégg mu jóge ci yow di ko gis te fekk yaa ko bind wala yaa ko wone muy dugg ci xolam mu di ko gëm jàpp ne noona la yow mi fexe ba loola àgg ci xolam mu gëm ko am nga ci responsabilité bu rëy allahuma inna nasaluka ziyadatan fi ddin wa barakatan fi lcumr wa sixatan fi ljism wa saatan fi rizq wa tawbatan qabla almawt وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا ذاكرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ونسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه اللهم أغثنا allahuma agisna allahuma agisna allahuma inna xalqun min xalqik fala tamna anna bi dunubina risqak allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi alaxirati xasana wa qina adab annar wa aqim alsalaa